salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk sénégalais yi nuyuwaat nañ leen beneen yoon sànq am na benn waay bu ma bind ne ma saa yow sonn nga de ne ko wallaay dëgg la réew mi moom ku ko bëgg ku ne di nga sonn ku ko bëgg ku ci caaxaan yi nekk ci réew mii moom danga sonn dëgg dëgg sonn wax dëgg fa yàlla ndax Sénégal comme li ñuy wax rek dundub naa feq naxante jay suñ bopp maanaam loolu dafee nekk dañuy gis dëgg gi de ay problème am ñu xam ne problème bi lii buñ fa jaaree problème bi le waaye nit ñu duñ ko wax de nekk ci la gën a metti duñ xool mukk fa yomb la gën a metti wiir wiir wax ji sonal suñu bopp tànqal suñu bopp mbokk sénégalais am na si ñoo xamante ni si tamit ñoom moom dañ dul nitu dara tekkiwuñ dara tous dañ tekkiwu dara tekkiwuñ dara ndax bu demee ba toll si jamono ji ay nit maanaam mën a toog maa ngi gis sànq euh, imaam kalifa mi ngi def live bu am am solo macha allah partage bari lool osr live bu bu ngeen ko mën a partage am na solo trop trop trop sax wax ci ay dëgg yu wéppé ngi maa ngis ñi saaga ci suuf ay nit yu saaga ci suuf man xaw ma ñooñu waa APR lañ wala man loolu laa jàpp sax waaye jàpp ma ni as gor ay nit ñu yërëm seen bopp ñooy bind saaga yooyu. ci kuy wax ci affaire politique bi di wax comme Macky Sall affaire yi ni nii am ci askan wi léeg nga dégg nit sànq dafa am ku ma dégganteel yooyu sax day gën a kiiwaat sama xol daal damaa yërëm sama askan daal ñuy toll ci ay détails yu Ousmane Sonko wër fa woon dem warul woon dem foofu quoi xam nga dafa waroon toog warul woon dem ci kii ba yooyu bu fekkee ci détails yi ngeen toll. wallaahi yëgoo leen lu xew sa dëgg-dëgg nit ñu mel noonu noo war a commencé sax ñuy yat jël yat sax di leen tàndar par quatre quoi xam ne ñuy bëgguñu dara quoi nit ñu tekkiwul dara képp koo xam ne yow sa bopp rek nga gis sa njaboot rek nga gis amuloo benn njariñ askan wi bëgguloo askan wi waaye kooku kooku yàlla na la yàlla may looy lekk di kon di naan rek ndax doo amal njariñ nit ñi quoi te xaalis yooyu ay bakkaara ki ay problème rek la lay indil. képp koo xam ne bu ko yàlla dénkee xéewal moom dana ci def lu amal njariñ askan wi yàlla na ko yàlla bàddil ci lépp nag képp ku yàlla may daraja it sa daraja lu bon rek nga ciy def tamit yàlla bu la yàlla may daraja ndax li gën a bon mooy borom alal gu bon bu ah, borom alal bu saay-saay wala ko am daraja ko saay-saay mais dëkk bi da ngeen di gis yoo xam ni ba <laughs> léeg-léeg genre laay fi sax du neex nit ñi waaye yéen a xam comprendre nga da ngay gis yoo xam ne sii dëgg-dëgg barki yàlla dañuy fo sa xol day jeex tàkk quoi sa xol day daggatoo sànq laa bi doon def noonu ci suba rek bi ma leen doon wax noonu ñun affaire Ousmane Sonko bii dama ni leen sénégalais yi waruñu toll ci seen xel ak seeni xalaat naan Ousmane Sonko li mu def dañuy xaar dëgg-dëgg dañuy xaar aw xaaruñu benn dëgg. danoo xaarut dama la ñii li nekk moo dul dëgg yéen xanaa déggoo leen wax ji xanaa xamoo leen lu xew xanaa yëgoo leen xew ñii danoo bëgg a tëj Ousmane Sonko du ay jigéen saak ndaw saak la xew ak la xewut ñoom lu nu programme lu bëgg la ne Ousmane Sonko dañ koy tëj li liñ bëggee tëj Ousmane Sonko xam ngeen ko xam nañ ko ñun muy ñii ay sàcc lañ ñii ay saay-saay lañ réew mi jaaree leen ko yoon alalu réew mi ñu ngi koy sàcc alalu askan wi ñu ngi koy sàcc Ousmane Sonko ne lii moom li muy xeex du jëmmam dafay xeex pour ànd ak ñun xeex pour mbuxu mi denc fi pour caaxaan yi denc fi pour Sénégal nit ñi gis ci seen bopp pour yéen sénégalais yéen seen bopp ngeen dund jàmm pas pour moom famem pour yéen ngeen dund jàmm pour noteel gii ni ma mitee man may wax noonu la mitee Ousmane Sonko muy wax noonu la mitee keneen muy wax mais nekkul loo xam ne pour jëmmam wala pour dara réew moo jaadu yoon réew mi ni muy dundee moo jaaduwul réew mi ñi fi nekk ay gourmand lan ay tonkat lan réew mi ñi ko jiite baaxuñu ñi ko jiite bëgguñu réew mi ñi ko jiite dañuy sax saxee alalu réew mi Ousmane Sonko lii lay fayet lii lay xeex amul benn opposition bu fi nekk bu dul Ousmane Sonko léegi moom li may fayet moom xeex bi lii lépp kañ ngeen di comprendre lii du xeexu parti politique. du xeexu turu politique pour politique pour ñu xeex pour ay politique ak parti Pastef parti yooyu yooyu nañ ko jël tegaase ko fële laa leen wax nga ñu ne xeexu ñu ay xeexu parti xeex bii li Ousmane Sonko di xeex yéen lay xeexal dafa am lu koy mitti dafa am lu ko mitti dafa am ba ay baadoola ñoo ñu jiite am lu mitti Ousmane Sonko yi baadoola yi di def mu gis xam ne lii jaarut yoon mu gis xam ne lii lu bon la mu gis xam ne lii luy sànq askan luy tàddeel askan wi la léegi nag loolu noonu ci boppam. moom moo déranger Macky Sall du leneen gouvernement bi léegi ñoom Ousmane Sonko tey bu fi toogee maanaam ci wàllu buumu jaam geeg wàllu leneen ak leneen pour dëkk bi jëm kanam sàcc yooyu ñu war leen tëj ah, Ousmane Sonko bu toogee Macky Sall mii dañ koy tëj Ousmane Sonko bu toogee Macky Sall mii dañ koy audit fan la jëlee xaalisam bii dañ koy lijjanti Ousmane Sonko bu toogee ku fi mës a sàcc dinañ leen lijjanti te ñooñu ñu war a lijjanti ñooñu tey ñoo ngànk nguur gi ñoo fi toog. yow kun war a lijjanti yow mu wóor na la Ousmane Sonko bi bu toogee lii la bëgg defar réew mi defar moo ko tax a jóg ñu nekk kii àll mukk du fi toog ndax bu fi toogee daf ñuy toroxal lii moo xew mbokk sénégalais yéen ñi xamut yéen ñi comprendre lii moo xew mais du leneen léegi nag ñooñee audit bi mu leen di audit war leen lijjanti ñi fi toog sàcc yi fi nekk ñoom ku jub daf leen arrangé wut Ousmane Sonko bu fi toogee ñoom dañuy perte seeni bain dina nangu seeni kër yoo xam si kër yoo xam ne kër bàyyi naa la yàlla yi la dinañ ko nangu li nu def askan wi ak tooñ win fi def ak li nga xam jaaru yoon dañuy àttee réew bi yoon te bu ñu àttee réew bi yoon ñii nga xam ne jubuñu ñoom ñëpp dinañ dugg kaso ñoom ñëpp dinañ leen duma ñoom ñëpp dinañ fudd seen ndigg léegi nag yaakaar ngeen ni ñi toog nii ñu xam ne Ousmane Sonko mii bu toogee daf leen di yàqal bu toogee ñoom dañuy sànku ñooñu dañuy xeex ak yéen pour Ousmane Sonko bu mu toog ndax ñoo nekk pouvoir pouvoir bi ñoom ñoo ëpp doole ñoom ñoo gàddu doole tey jii waaye suba dañuy wàcc mais duñ bàyyee noonu réew mi di ko jox ku jub mu leen di indil problème duñ bàyyi réew mi Ousmane Sonko ñëw di fi toog di leen di leen toroxal di toroxal seeni njaboot di nangu seeni alal di nangu li nu di nangu lu luubal delloo àq ya loolu arrangé wu leen loolu seen bakkan lan ci teg. loolu ñoom jaral na leen dee ñoom dañuy géer ak yéen buñ leen mënee rey dinañ leen rey luñ mën ci yen dinañ ko def ndax doo leen yàq seen life combat bi entre Ousmane Sonko ak Macky Sall ak gouvernement am lii la du leneen amul secret combat bi entre gouvernement Macky Sall ak Ousmane Sonko lii la ndax ñii danoo luubal danoo tooñ askan wi danoo sàcc alalu askan wi ku fi masa a mooy ñu toog tey ñi am kàddu ci dëkk bii. jiite réew mii ay sàcc lañu ay naxaatekat lañu ay fenkat lañu danoo jël alal réew mi saax saaxe ko àq yin fi am léegi Ousmane Sonko moom loolu moo ko mitti réew mi ni muy doxee baaxul moo ko mitti réew mi li fi nekk baaxul moo ko mitti léegi Ousmane Sonko léegi lii lay xeex pour lii jóg fi te li muy xeex noonu ñi fi toog ñoo koy def ngeen yaakaar ni combat bii dina yomb Macky Sall di leen bàyyi réew mi Macky Sall bakkanam la ciy teg ngeen xam ko Macky Sall combat bi seen bakkan bi ngeen ci teg moom bakkanam la ci teg Ousmane Sonko falu Ousmane Sonko toog bakkanam la ci teg ku nekk mën naa toog ba mu des Ousmane Sonko ku merk mën naa jël réew mi ba mu des Ousmane Sonko wala ku yor gis-gisu Ousmane Sonko ñoom xeexuñoo jëmm li ñuy xeexal idée Ousmane Sonko arrangé wu leen idée bu jub arrangé wu leen idée bu baax arrangé wu leen. looloo tax nag ñu ne kii far force balaa ñoo wàcc ci nguur gi moom dinañ ko tëj moom moom du bokk du dem même Macky Sall moom bu dee day wàcc ndax li mu fi def lépp moom mooy day wàcc moom incha allah mais balaa muy wàcc moom dina defar ginnaawam quoi dina xool ko bon ku fiy toog waaye nekkul nag maanaam Ousmane Sonko du usmaan Sonko mu du ko nekk ndax Ousmane Sonko da leen toroxal mais ñoom ñi ngi lijjanti kan moo fi war a toog koo xam ni bu fi toogee ñoom li sàcc ñëw fi pour defar ñëw fi pour liggéey ku mel ni ñoom lañ soxlawaat ab sàcc bu mel ni Macky Sall sàcc bu mel ni Ablaye Wade sàcc bu mel ni Abdou Diouf sàcc bu mel ni Senghor yooyu lañ soxlawaat ñu toog fii ndax sinon kon liñ fii lijjanti ñoom du leen arranger pour ngeen comprendre li xew lan la moo tax lii bu dul ndaw si suba dina indiwaat leen teg ko ci kaw Ousmane Sonko loolu ngeen xam ko faagaagal Sonko lañ bëgg rey Ousmane Sonko lañ bëgg bëgguñu ko baax bëgguñu ko baax koo xam ne yaa ngi fi wooteeg mbaax ci dëkk bi pour dëkk bi di àttewu yoon bëgguñu ko. xalaatuñ ko ndax arrangé wu leen buñ fi tegee ay loi teg fi dëgg ci dëkk bi loi day dal seen kaw ndax jubuñu sàcc gi ñoo koy def ndëggal gi ñoo koy def luubal kees yi ñoo koy def tooñ nit ñi ñoo koy def ak jàmbur yi ñoo koy jalgati loolu bu loi ñëwee ñii dañuy doy Macky Sall day doy Macky Sall est-ce dina mën a def comme yeneen gouvernement yi sax bàyyi nii nguur gi rek mu demee noonu du demee noonu moo tax moom ci guerre la nekk ak senegale yi. te benn nit bëgg a guerre ak Sénégalais yëpp bañ leen lànk leen moo tax débat bi fi koy bëgg teg nañ jéem a changé débat bi débat bi nekkul ay Ousmane Sonko Ousmane Sonko moom wañ nan ko ba am na benn booy bu ko barki démb mu ne Ousmane Sonko dañ koy fexeel mu wàcc yàlla ne Ousmane Sonko dañ koy fexeel Ousmane Sonko coup bi ñu ko tegal ndëgg sërëx bi ñu ko tegal dal na mais loolu jeex na jeexal na wax ci ndëgg sërëx bi ñu ko tegal dal na ne ab ministre bu nekk ci Macky Sall moom moo ko ko wax. di waat ci yàlla ni ndëgg sërëx bi ñu ko tegal dal na Ousmane Sonko plan bi ñu ko tegal dal na mais loolu kay leer na naññ leer na naññ plan boobu lu tax ñu tegal ko ko mooy li leen wax nii moo tax du leneen bëgguñu ku baax ko fi toog parewuñ pour ku baax toog fi ndax arrangé wu leen ñoom kuy yàq lañ bëgg mu toogaat fi ñun dëndul nangoote ku yàq di toog ci dëkk bi kon li ñu bëgg a tëjee Ousmane Sonko du ay tëj wala li ko bëgg a rayee sax ray laay wax du ay question pour ay pour ay tëj ko pour ndaw seek def na lii ak def na lële loolu nañ ko jël tege ko côté ba pare am lu bees lu ci juddu loo xam ne sénégalais yi dafa jot ngeen lijjanti ko moo tax ma ni Sénégal nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg bu nu jafeel lu jafewut combat bi dafa yomb suñ bëggoon ñun sénégalais tey ñu manko pour Macky Sall wàcc fi suba suba suba Macky Sall jóg fi ci ñun la des moo tax nañu waxante dëgg nañ waxante li nga xam ni yoon wii buñ fi jaaree kii dina wàcc Macky Sall dina ci yoon woowu xam ngeen ko man xam naa ko moo tax bu nu sonal suñu bopp waxtaan yi nañ ciy boole wax dëgg te yàlla suñu borom tax baña topp suñu bakkan baña xeex xeexu naa feq bañ a xeex xeex boo xam ne ay xeexu ngëm-ngëm ak comme ni ñu koy waxee dañ waxante dëgg ci suba waxoon nañ leen ko neleen leen Macky Sall yéen ce que am ngeen ndéggat ci li mu war a jàppee Ousmane Sonko waxuñu la jàpp Ousmane Sonko de loolu nañ ko jël annulé ko ay jàpp Ousmane ko yooyu nañ ko jël tegee ko kote ñu annulé ko Macky Sall nga génn ci loolu nga xam ne loolu patriote yi nit ñi nga xam ne deretu gor mi ngi dal seen mi ngi daw seen yaram ay jàpp Ousmane Sonko waxatu ko mais sa loi bi nañ ko teg ci table bi sëriñ si man maa ngi ciy woo ñëpp di tudd seen tur di jaar ci seen sant di jaar ci seen santi maam sëriñ mun Muntaxa Mbàkke dangaa bokk ci combat bi nga war a jóg nga xeex nga taxawal sa maam Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ bay Sy Mansour da ngaa war a ñëw nga jàpp ci kombaa bi nga ñëw xeexal samaam El Hadj Malick ña nekk buukunte noonu na nekk ñi ngi woo mbooloo mi tarixa di leen woo ne leen yéen a ngi seetaan ay caaxaan yéen a ngi seetaan lu dul dëgg li ngeen di seetaanee nit ñi ci réew mi lii du dëgg du yoon seen kàddu dafa war a jóg da ngeen a war a wax pour coow li jeex benn yoon bu ngeen ci duggee lépp le bu leen naxante bu leen jayante nañ waxante dëgg li fi nekk lii Macky Sall nekk baaxut ñépp xam nañ ko askan lu baaxul nag sëriñ képp kuy woote xalif di woote kilifa diine lu baaxul da nga ci war a xar sa tànk ak tubéy ci war a xeex te boo ci xeexee day antu dafa jot ngeen joxe ndigal gaa yi jóg dem pale wax ak Macky Sall mi dafa jot ngeen joxe ndigal Macky Sall mi wàcc ma wax leen fu ma ko teg yéen sëriñ si maa ngi woo sëriñ Mountakha Mbacké maa ngi wax ak yow sama message bi yàlla nga ko jot Mbacké Balla sëñ Mbaye Sy Mansour sama message bi yàlla na nga jot mbooloom sëriñ bu nekk Sénégal yàlla na ngeen jot sama message bii ngeen déglu ko te sax da koy jot. te sax da koy jot dama ni dafa jot ngeen jóg ngeen dimbali seen askan ngeen xeex dëgg ngeen bàyyi di caaxaankat yi nekk fii di caaxaane réew mi te ngeen am ci ay solution te boo leen jógee ngeen xeex. bu boobaa di ñu yokk jom bu boobaa di ngeen ñu yokk fulla bu boobaa lii lépp dana leer makki sàll daganal na góor jigéen ci dëkk bii di senegal Sénégal mun taxa Mbacké nga déglu ko nga jot ko sëñ mbay Sy Mansour nga jot ko nga déglu ko Macky sàll daganal na lii di góor jigéen ci dëkk bii di senegal Macky sàll jàppum usmaan Sonko bii nga xamante ni si mi ngi bëgg naan day jàpp usmaan Sonko li tax mi koy jàpp du loi bu baax joxu joxul kenn cër ci sénégalais ndax bu dee viole sa soxna ci boppam mu ne loi viole bii dafa jàll sa soxna yow ki nga takk ci sunna ak ci farata ñu ne la sa soxna soosu bu ko neexee maanaam mu xañ la boppam nga nga egg ci kawam mu dem dem police ne kii daf ma sama jëkkër daf ma viole violé liñ koo xamee woon mooy ci mbedd nga fekk ab nit kuy dox nga siif ko viole liñ koo xamee woon ci mbedd ci ci kii mooy nga fekk nit fekk du sa jabar du sa lenn nga ñëw fekk nga dal ci kawam te joxu la boppam loolu lañ tuddee woon viole loolu mooy viole tamit mais ñu bëgg a jël viole bëgg ko tuddee koo xam ne dem takk sa soxna ci sunnas yàlla ak farata muhammad sallallahu alayhi wa ñu may la sa soxna mu nekk sa biir kër soxna soosu mën a xëy suba mën laa yóbbu police ne sama jëkkër daf ma doon violé lii sunuy ndey jàngaleen ko lii bokkul ci sunu culture lii Cheikh Amadou Bamba bu ko fekkee woon dina ko xeex Alaaji Maalik bu ko fekke woon dina xeex baay Niass bu ko fekke woon dina xeex génn leen ngeen xeex génn leen ngeen waxal taalibe yi ngeen wax li nga xam ni mooy liy dëgg ci réew mi ndax lii Macky sàll woote nii du dëgg lii nii mu woote sunu diine bëggu ko jigéen bu la sa jëkkër soxlaa danga kaa war a jox sa bopp waajur yi li ñu doon jàngale ñoom li nu xamal doom mooy na nga doom nga mokk pooj ba sa jëkkër fu la soxlaa nga jox ko sa bopp ndax loolu day tax nga am doom yu barkeel day tax nga am doom yu baax Macky Sall ñëw xalaat xalaatam yéen sëriñ si yéen laay waxal Macky Sall ñëw xalaat ay xalaatam ci tubaab yi réewum tugal yi Macky Sall mii réewum tugal am na ay xalaat yu baax yu nu am am nan loi yu baax yu nu am loi yu baax yooyu yëpp Macky Sall jëlu ci benn yéen sëriñ si sëriñ si nit ñi ñu ngi dee ci ay accident li leen ko teg ay chauffeur yi màndi Europe gii ku fi màndi di dawal dañuy nangu sa permi teg la daan yoo xam ne bu ëllëgee doo dootoo ko defati yéen sëriñ si nger mi ngi fees dell senegal makki sàll di seetaan loolu loi yooyu Europe bii dañ koy tere ab policier boo xam ne nit ñëw yorul permis mu ñeexal la ab junni wala wala wala ñaari junni wala juróomi téeméer nga bàyyi ko te amul permi nga bàyyi ko muy dawal oto ndax weccet rek moo fay dox xaalis rek moo fay dox loolu policier bu ko def ci bitum réew fii dañ lay summi ba pare danañ la teg ay daan dootoo ko defati sa moromu policier sañu ko mais mu doon loo xam ne Sénégal dem ba normal policier yi di ko def nii ñëpp xam ko ba même boo ko defoon ab vidéo vidéo policier boobu policier bi nga xam ne da nga kaa ngeer sax du mujj fenn dëkk bii du dëkk yoon dëkk la sans loi lan moo tax jëloo leen ci tubaab yi seen idée yu baax yooyu lan moo tax jëloo leen ci tubaab bi ci seen loi yu baax yooyu mais Macky Sall loi yi góor jigéen la ñu fi indil moom lay jël ak loi yi nga xam ne ay wàllug viol affaire Ousmane Sonko bii dafa dépasse Ousmane Sonko yéen waratoo leen xeex pour naan ay sax affaire Ousmane Sonko na wuyu jeeg du wuyu jeeg warul kii ak affaire bi dafa war a leer xam ngeen lan ngeen war a dindi loi Macky Sall ne ko dindi loi bii baaxul kilifa diine jàpp leen ci loi bi du loi l'islam li muy wax l'islam daf ko ŋàññi yow jigéen bi sa borom kër soxla la war a ànd ak yow yow nga ne sa borom kër nga xañ ko sa bopp loolu sunu aada nangu ko sunu culture nangu ko Macky sàll toog xalaat xalaatam ñëw bëgguñu ko indil bëgguñu ko forcer te waxul kenn dara Macky sàll respecté wu ñu Macky Sall joxuñu cër seen luubal yu nu def mu ëpp li xew yéen sëriñ si sëriñ Muntaxa Mbàkke sëriñ Mbay Si Mansour yéen sëriñ si li xew yéen xam ngeen ko dégg ngeen réseaux sociaux yi nit ñi ñi ngi wax seen taalibe yi ñi ngi wax ñi ngi bëgg dee xam ngeen li xew lan la dëkk bi dafa doxul dëkk bi ndaw ñi liggéeyul dëkk bi ñi ko jiita jubuñ dëkk bi ñi ngi jël sunuy alal sunu richesse di ko jël di ko yóbbu ci ay bitim réew lépp lu ñu am ci lu baax tubaab ñëw jël ko ñu not ñu noteel bu bon a bon Ousmane Sonko li muy woote lii la yéen Serigne Mountakha Mbacké jàpp ci sëriñ Mbaye Sy Mansour jàpp ci Sénégal daf leen war a jaral Sénégal daf leen war a yitteel da ngeen war a taxaw di xeexal seen askan comme bu fi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkee ni muy xeexee ngeen xeexee noonu bu ngeen diggee ci combat bi ngeen jox taalibe murit yépp ndigal wax leen comme Macky Sall mi lim fi nekkee ak sàcc la fi nekkee ak naxe daganal na fi góor jigéen lii képp waroon naa tax ngeen bokk ci combat bi ngeen xeex ngeen jox seen taalibe yi ndigal ngeen toog wax ak Macky Sall ngeen taaj ko mu wax leen lu leer benn nit dong warul mën a fontoo sénégalais yépp yéen ñëpp sëriñ si bu ngeen toogee ngeen mànkoo ngeen booloo dafa jot yéen ñëpp ngeen ànd booloo mbooloom nitu diine yéen kilifa diine yi sëriñ Muntaxa Mbàkke sëriñ Mbay Si Mansour sëriñu Ibaadu ba sëriñu kere ci yéen ñëpp ngeen def seen kuréel ngeen def seen waxtaan ngeen taaj Macky Sall ngeen taaj gouvernement bi ngeen wax ak ñoom li ñuy def ñu bàyyi ko tooñ wu ñuy tooñ askan wi ñu bàyyi ko seen loi yi ñu dë dë muy loi góor jigéen mu dindi ko bu ngeen ko defee dafay deñ bu ngeen ko defee ne ko boo ko deful nag waa dëkk bi dina dal sa kaw ngeen wax ak Macky Sall waxi fulla ak waxi fayra su ngeen ko defee askan wi am jàmm barki démboo njaay mi ngi jéem a kii daara yi ngeen toog waxaale seen soxla yépp yéen kilifa diine yi ñëpp laa leen wax dafa jot ngeen mànkoo ngeen def seen kuréel képp kuy kilifa diine muy bu chrétien ba muy bu musulman ba muy bu tarixa ba muy bu ñëpp yéen ñëpp ngeen dajaloo ngeen dajaloo ngeen toog ak président Macky Sall ngeen wax ko dëgg ndax yéenay baatu askan wi li ngeen am Macky Sall amu ko Macky Sall ku ko topp yaa ngi ko toppee ci koom-koom Macky Sall ko ko topp yaa ko toppee ci mooy président pour mu ceebal ma yéen nit ñi dañ leen topp gëm leen jox leen seen bakkan ak seen lépp seen kàddu moo gën a foor kàddu ñépp yéenay senegal senegal boo fa génnee tarixa murit nga génne fa tarixa tijaan nga génne fa tarixa ñaseen nga jël ibaadu yi nga jël chrétien bi nga boole leen yéen ñi nekk njiit ci bopp diine gi dama ni yéen kàddu yi ngeen am kenn amu ko fi def leen yëfi fulla ak fayda ngeen yërëm seen askan yéen ñëpp ngeen dajaloo fii tollootuñ ci ay xaajale tollootuñ ci ay kii lii la kii lële la ngeen jéem a boole sax diine gi sax mu nekk benn ngeen xam ni diine gii diine yàlla la diine gii lan la ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ngeen boole julli ñi xam ne leen benn yàlla moo am benn yonent yàlla benn yenent moo am ñun ñëpp ñu ànd roy yent bi salaa salaam jël alquran bi ñu jël di ko dund jàppale leen diine d'islam bu ngeen dajaloo nii ngeen bennoo bokk ndey bokk baay ngeen jàngal nit ñi diine ngeen yar nit ñi xeexal nit ñi bu boobaa senegal dina am jàmm am ngeen ci paar te mën ngeen ci def seen kàddu dafay jariñ seen wax dafa am lu muy jariñ wallahi bu ngeen booloo liñ wax nii ngeen def ko lii solution la boo xam ni kenn du fi toj dara ngeen wàcce Macky sàll mii ndax saay-saay la nañu waxante dëgg ñun ñooy jafeel combat bi taalibe yi topp leen fële laa leen wax yéen ñu topp nii sëriñ sii laa leen wax ku ci mer yaa xam dama ni leen li ma leen wax nii dëgg la li wax nii mooy li am un plus un égale deux dama ni leen xalif bu nu jógee sëriñ Muntaxa Mbàkke jóg sëñ mbay Si Mansoor jóg sëriñu Ñaseen ba jóg ñi jiite ibaadu yi jóg chrétien yi jóg ñëpp toog ñu def mobiliser taaj sàll la wax ak moom dëgg wax ak moom wax ju am fulla taalibe yi dégg ko dina am effet bu mu def ci taalibe yi wallahi wal azim Macky Sall jóg fi suba suba ne ko sàll Sall soxlaatun la makki sàll wàccal ndax Macky sàll baaxul ab bëñ la boo xamante ni si bëñ bi bëñ bi metti la bëñ bu bënn la dañ koy wekki sànni sëriñ si bu ngeen toogee seen kàddu dong yéen ñëpp laa ne yéen kilifa yi ngeen dajaloo nii ngeen ne Macky Sall ñun soxlaatun leen ci réew bi taalibe yi appliqué waa dëkk bi yëpp appliqué wallahi ñu dox ci masik maaxoo ba la koy waxe duñ taal xeer duñ taal dara te jàmm lay mujje ak salaam sëriñ si armée bi seeni taalibe lan armée bi koo ci gis am na fii ay gëmkat ñoo fi nekk way gëm ñoo nekk senegal mbirum sëñ Modou Kara bi barki démboo Njaay rek leeral na mbiri ba mu ñëwee di sujootal ab ci gaay ab armée ab militaire ñu simmi ko di leen wan fan toll ci yéen ay militaires yi ay taalibe lañ te ban ko defee taalibe yi ñu ngi koy ñaawlu naan pour quoi muy dàq kii ci kii lii ñuy may koo ko xaalis may ko ay kër kon ay taalibe ngeen sëriñ si ngeen gëm armée bi ay taalibe lañ sëriñ si kon bu ngeen génnee ngeen wax armée ba ña fa nekk ñii murit lañu ñii tiijaan lañu ñii waa kër Baay Ñas lañu ñii waa kër Alaaji Malik lañu ñii waa kër sëriñ Touba lañu armée bi mooy ñi jiite armée ba cat ba cat ñi jiite armée bi cat ba cat ñii ñi ngi nekk waa kër Càndum nekk ay chrétien ñi jiite armée bi boo xoolee am na ñoo xam ne ñii ay ibaadu lan yéen ñi nga xam ne yéen a yéen ñi nga xam ne yéen la nit ñi di jëglu seen kàddu moo gën a foor kàddu Macky Sall seen kàddu moo gën a for kàddu gouvernement ngeen jog ci fulla ak fayda ngeen dajaloo ngeen booloo waxuma ay waxu biir néeg yooyu ngeen di wax si waxoo leen fi dara ko fi toog ci biir néeg wax te kenn gisu la nga toog ba ñuy pikiir nit ñi ni ngeen amee fulla ba ànd ak nouvel ordre mondial bi toog wane seen bopp ak seen kanam di duutloo nit ñi ay pikiir ngeen defee ko noonu ngeen génn ngeen wax taalibe yi dëgg ngeen yërëm seen awaskan ndax balu ba li nga xam ne du intere Sénégal ba mu ñëwee taxaw ay pikiir yu ñu bëgg a rey suñu doom yi yéen sëriñ si da ngeen toog ngeen wane seen kanam ngeen jëmmal ko ni leen loolu yitteelee ba ngeen jëmmal ko nekkul ci ay ojo dégg nañ sëñ taxa wax na lii ci suuf dégg nañ sëñ Mbaye Sy Mansour wax na lii ci suuf da ngeen di wax comme na ngeen jëmbalee woon pikiir yi toog bëgg nit ñi duut pikiir yi ngeen toogaat noonu wax ak président Macky sàll ci fulla ak fayda taalibe yi buñ leen déggee ngeen wax comme nii ñu gis leen ngeen wax comme ni wallaahi gaa yi appliqué wallaahi taalibe yi appliqué wallaahi Macky Sall jóg fi ci lu gaaw ndax Macky Sall jubut baaxut kuy daganal góor jigéen sëriñ bu ànd ak moom sëriñ boobu wëyu la sëriñ buy jàppale kooku sëriñ boobu bandi la sëriñ buy jàppale moom kooku noonu lislaam la ndax lislaam dafa bañ góor jigéen. loi bi mu indini ba naan Ousmane Sonko ak yooyu yéen sëriñ si lu si seen rôle ba ngeen ko déggee da ngeen war a tiit ne xasbunallahu wa ni'mal wakiil makki Sall ndekete yow lii lay doxal dem ba dugg ci sëyu jàmbur yi naan ku yor sa soxna suñ la ci sunna ak farata mu doon lislaam digal la ne la soxna yi seeni tool la fu leen neex jaare leen ko makki Sall ñëw weddi wax yàlla googu yépp ne jigéen mën nga toog tey sa soxna ngay sëy ak moom di dugal ci soxna yi ay ñàkk jom nga war a sëy moom soxna si naan danga may viol ndax lii sëriñ si waroon nga ko seetaan ñu waxante dëgg te yàlla tax yàlla dëgg la bëgg dee benn yoon la dee benn yoon la laa leen wax yàlla dëgg la bëgg nañ bàyyi naxante gii nañ bàyyi dundug naa feq ak dundug tappale fekk ñi ngi ci duñ dem fenn seen combat bi woo leen ci sëriñ sii woo leen ci xalif yi xalifu murit xalifu tijaan xalifu layen xalifu ñaseen ñu jóg wax ak Macky Sall ndax wax dafa jot xeexal askan wi dafa jot ba ñu bëggee duut pikiir yi yéen a ñëw toog fii pour duut ñu ay pikiir pikiir yi day reyaate xaw ma xam ngeen ko xaw ma xamu leen ko mais pikiir yi luy rayaate la lépp lu Macky Sall bëgg ngeen jóg doxal ko ko ndax moo leen yónni dox loo leen ne leen wax leen pour taalibey pikiiru Macky Sall mi leen yónni ñun askan wi ñun ñoo leen soxla ñun askan wi ñun ñun ngeen fi toogal yéen ñun tamit dañ leen yónni ci Macky Sall yónni nañ leen ci Macky Sall ñun taalibe yi ñun ñoo leen yónni ci Macky Sall ngeen wax ak Macky Sall mii fukki dëgg ndax mi ngi xeex lislaam mi ngi xeex daara yi dégguñu leen ci ngeen ne muut noppi seen kàddu jógut waxoo leen dara dara waxoo leen ko mais ba mu leen yónnee pour ngeen pikiir ñu jóg ngeen ngeen wax kon lan ngeen fi nekkal ak yeneen ñan ban lislaam ngeen fi nekkal lan ngeen yërëm seen askan yërëm leen seen askan balaa ngeen di woote rek seen jumaay maam yi seen intérêt maam seen intérêt bopp sax maam sax dem na balaa ngeen woote rek yéen a ngi woote seen xew-xew yi màggal gàmm balaa ngeen woote rek seen intérêt personnel te màggal gàmm googee bu ñëwee du seen dërëm bu ciy dem nag ya taalibe yi ñoo koy jënd xar ya taalibe yi ñoo koy jënd taalibe bu ñëwee toog ci seen suuf boof di leen raamal loo leen am taalibe yi du seen liggéey taalibe yi ñooy bay di leen jox taalibe yi ñoo ñëw di leen jox ay adiya kër yi ngeen dëkk taalibe yi ñoo leen koy jox kon ngeen yërëm seen taalibe yooyee bu fekkee ku comprendre l'islam moom dinañ xam ne dëggantaan yii moom ay naxaate la du diine ndax yonent bi sallallahu alayhi mësul toog di laaji adiya Aboubacar Sadiq mësul toog di laaji adiya ñaqam la daan dundee Aboubacar Sadiq ñaqam la daan dundee Omar ñaqam la daan dundee lislaam xamut lii nee na loxo biy joxe moo gën loxo bi nangu waxu yàlla du ko weccoo wax doomu aadama ki lay jox moo la gën di la jox lekk di la jox naan moo lay teel sa walis moo lay defal lépp ku la tudd mu xeexal la ana kañ ngeen di jóg xeexal seen taalibe yi ana kañ ngeen di am yërmande ci seen taalibe yi taalibe yi fu nu toll ci yéen yërmande gi nu am ci yéen yéen amoo leen ko ci seen taalibe yi taalibe yi ku leen tudd taalibe yi xeex ak ñoom ku leen laal taalibe yi xeex ak ñoom ku leen diingat ci seen naxe yi taalibe yi xeex ak ñoom jël seen alal di leen ko jox di leen bayal ñoom ñu nangu ñi yéen gën seen ndey yéen a gën seen baay ñoom ñu nangu ñi ne ñoom seeni jaam lañ yaakaar leen jël seen yaakaar teg ko ci yéen taalibe yee ngi dee ci ay feebaru jalis taalibe yi ñu ngi am problème hôpital bu ngeen toogoon dong ci hôpital avant yi yëpp ngeen toog ngeen wax taalibe yi pour ñu cotiser ñu tabax hôpital pour jalis pour dimbali seen yeneen i mbokk taalibe loolu taalibe yi fukki fan ñu matal ko seen kaddu tabax nu hôpital waaye waxoo leen ci hôpital ana lan ngeen di jariñ askan wi nañu waxante dëgg mbokk taalibe yi ngeen ubbi seen xeli yi mbokk taalibe yi dama ni leen sëriñ sii sëriñ Muntaxa Mbàkke sëriñ Mbay Si Mansour ak doomu Baay Ñas boobu bu nu toogoon fii Sénégal ñu wooñu ñun billahi ñu ne kaay leen tabax hôpital pour jalis wallahi wal azim mu mat te kere ceeba dana ca def keneen koo xam ne gëmu leen dana ca def ndax dan naan hôpital la pour njariñal réew mi lan moo tax ñoom mënuñu toog di diggal nit ñi ay hôpital ay jumaa ngeen di digal nit ñi te jumaa yi bari na jumaa yi nit ñi duñ fa julli jumaa yi du fees mais kañ ngeen yërëm taalibe yi ngeen wax loo xam ne taalibe yi ginnaaw seen loxo jotul ginnaaw ngeen yërëm taalibe yi di gestu taalibe yi di xeexal taalibe yi di leen wax luy seen njariñ hôpital yi bu ngeen woote woon hôpital ma ne leen ay ñetti fan hôpital mat na ngeen wootewaat beneen hôpital beneen hôpital ñëw na nit ñi di ci am ngërëmal yàlla sax di ci am tuyaaba ndax faj nan ay doomu aadama sowee nan ay bakkan mais seen askan di dee nii seen yoon nekk du lenn loo leen di xeexal du lenn lu baax loo leen di digal li nga leen di digal mooy àjjana loo xam ne eggagun fa li nga leen di digal mooy bàmmeel te bàmmeel eggagun fa li nga leen di digal ay mbóot yéen a yor njariñal àdduna ak alaxira leen ko bu dee yéen a yor njariñal àdduna ak bu fekkee yéen a yor ay baatin bu fekkee ay xutbu ngeen bu fekkee ay xawsu ngeen rayal leen ñu Macky Sall waay bu fekkee ay xawsu ngeen ay xutbu ngeen damani leen ngeen jël ci seen baatin yooyu ngeen Macky Sall mii wàcc fi jóg fi ndax li muy def nii mi ngi jël àq yàlla di ko di ko di ko di di di ko indi si Sénégal fii ndax li muy digle nii ci ay sëy wàll dencante loo xam ne mbirum privé la naan léegi sa jigéen sa soxna ci boppam bi nga takk ci sunna ak ci farata soxna soosu boo leen àndee ngeen sëy après léegi soxna soosu maanaam dem pelante la ne sama jëkkër daf ma violé est-ce que yéen a ngi gis li Macky Sall taxawal fii Sénégal. ñuy sàcc ay milliards yi milliar ay xaalis bu baree bari taalibe yeeg ñëpp xam nañ ci dara ay sàcc ñoo ñu jiite ana lan ana wan njariñ geen ñu amal ana lan ngeen war a doo leen xeexal ñu ngir yàlla sama gars yi nañ waxante dëgg xalifi nanu génn wax. combat bi yomb na jafewul fenn dafa jafewul fenn na xalifi génn wax joxe ndigal nañ génn wax ak Macky Sall wax ju dëggu barke alxuraanu karim dañ waxante dëgg maanaam yërmande man laa xamul wan yërmande lan am ci xeet wi dëkk baa ngi tàkk seen yoon nekku ci seen taalibe yi sonn nañ seen kër yi ñu ngi taa amuñu fu nu dëkk ba pare ñëw yaakaar leen àdduna ak alaxira di yaakaar ci yéen ay njariñ ak ak alaxira ndoxu yi lu tax sëriñ bi ñaanalu leen ndoxi taay yi dañ fi lu tax sëriñ si ñaanalu leen feebar mbas bi jóg fi lu tax ñaanalu leen ngeen am jàmm lu tax jàppale wu leen ci Macky sàll mi combat bi yomb na dama ni sëriñ si seen yoon da cee nekk dañ cee war a dugg ñoom ñëpp toog ñu def mbooloo dajaloo ñu wax ak Macky sàll ñu wax ak Macky sàll mii wax ak moom dëgg xam ne mi ngi lor askan wi. salaamaaleykum wa rahmatullah